boo ko gisee tey amul benn fi kenn newu fi mais sécurité bi ñu jaar yoon ñu def ko mu daal di neex lii mooy lamb lamb du sago rek bi ñoo am sakk comme boog dañuy ànd ak nit ñi ñuy gën a defar lamb ñu a nga doxal rek. ayca nuyu ko rek benn benn si ma ñëw yi gannaaw bi sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di war a jërëjëf sëriñ Tuubaa jaarama maam Seex Faal jërëw la ko sëñ Madaan Mbàkke di nuyu àdduna ñëpp yow rawatina Ngor Yoff Waxaam Almadi Taraawo maa ngi nuyu àdduna di nuyu fukki pecc ñaari yow di nuyu Ndakaaru bi ñëpp Fass Medina Colobane Gueule Tapée Grand Dakar Bène yi ñëpp di bëggee ñëpp Derklé ñëpp Grand Yoff xam nga Grand Médine Parcelles fu waxee wax rek mooy loolu di nuyu nag toujours booy maa la nuyu bu baax amoon di nuyu mbër yi fi di leen sant di leen gërëm waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa ngor bu baax a baax yaa di leen wax ne ya, man sama champion ak sama dégg daali si làmb ngir ma doon roi des arènes biñ bëgg ma indil leen ko sama làmb si ñoom la dépendre suñ ko bëggee barki maam Seera Fall ma indil leen ko lépp si ñoom la dépendre man ama dara lu leen suuf ama dara lu leen gën te ragaluma tamit fi ma jëm bu dee roi des arènes ay coono moo koy jël ak liggéey ay xalalañ bu ñu liggéey rek ngay def waaw sama làmb nag si ñoom la tegu kilifa yi yëpp di jégalu ñëpp waaw di lancer appel jàngi sud fóolu na waaw samedi la 17 incha allahu rabi naka ngor waajal àdduna yëpp waa di woo sirif yëpp si làmb ji di leen woo ñëpp ñëpp ñëpp di sant di gërëm waaw di sant yéen journaliste yi yëpp di leen wax ne ñooy jégalu marché coono am ñu seen fay waaw yaa salaam ay ca doxalal ñu ci bis bi ñëw ci am mooy naaru sokaas dengan ngaa ada def sa sorti sortie yang sama nga ñàkk sedikit diggante Aliou Cissé Junior ñu gis sa diggante ak yang Sogas nga jël combat bi yang sérieux ci trop gis yi yang ànd si ak suka mbokk liggéey ci lu doy waar lan nga indi Naar Sogas ci combat bi waaw di ko wax peri bi dengan buah booy bi cuune la ngaax la loolu footu mbir néeg la waaw comprendre nga man dama bokk si làmb dafa war a am fu dem dafa am def mais du ay détail quoi yàlla baax na da am fu mu jugee kon waaju bara gi saa du ko jar parce que sëñ Fallou dafa am fu mu jugee mu métti ñu trop yow moo waral man samay xarit bu ñu gis ma sax problème la si lépp nag ma tee sama bopp doxañ sama bopp xam fi ma jëm incha rabbi waaw mais ki ngay amul am na différence de taille bu ci am ak gën ne yi nga doon bëreel boo xoolee ku ci mel ci combat bi nga jógee naan sax bu ci adversaire ñun suñu écurie am na façon bépp làmb la rek waaw naaru suñu mag la suñu lépp la waaw si yàlla incha allahu rabi man samay supporter ma leen dig mooy ñu sangu ba set waaw xeeñ basement yu neex sol ci seen yu cher kon niñu ñu waajal bi ñu ñu ñibbi sa ñibbi sa bu neex si kàttanu yàlla incha allah waaw. mais danañ bii passé nga ñëw agressé naaru taxaw ci kanamam. jur boobu noonu ñu gis nga aalu ci kaw lan la combat bi ne doy wala bis bi dafa dépassé si tool la. bis mënuma dépassé man waaw bat seera Fall waaw bis man mënuma di sant yàlla am na ñoo xam ne maa ngi ànd ak ñoom depuis xale ba léegi yàlla dogal benn yoon lañ ma sa si mu daanu suuf depuis mbapat fu nekk ñu dem fa ànd fu nekk si dund bi yëpp benn yoon lañ gis si tey ñi mbër daaneel ko ñoom ñu teg seen bët am na ñoo xam ne ma suñu gis ñooñu noonu am mu metti woon trop waaw yàlla baax na incha allah rabbi waaw maa ngi sant samay xarit yëpp nag waaw ba mu mettee waaw sant yàlla ko waa ok Siteu ñu lay nuyu bu di la siyaar dañu gis nga jógee sa euh, combat perte ko sa diggante ak Alioune Sèye Junior si diggante bi ñu gis benn champion ngeen am ay relation ba ñu dégg sa biiri kàddu ne da ngeen di bokk sax di fanaan ñu dénk la ko muy Omar kan Reug Reug champion boobu ana tey lan la représenté sa carrière ginnaaw défaite bi nga ànd ak moom war a dëgg ma sa diggante ak Naaru Sogas. waaw loolu sant yàlla rek waaw xëy na dafa baax rek xam nga rek si lépp toppatoo na ma si lépp waaw lépp lu war si man def na ko man yaakaar naa du naaru sax li nekk sama kanam la ko waaw di sant ñëpp àdduna ya. lan lan lan moo wundu relation bi. jàmm ak salaam rek sama mbokku lébu ñun lu ñuy dund lébu lu ñuy dox lébu la muy nii. ngor laa dëkk ay lébu laay làkk waaw ñun moom la ñuy dund moom la ñuy nooyee moom la ñuy doxee. Mm. waaw mooy loolu di vingt 121 tund lébu yëpp si làmb ji. woo bu baax. Mm. par rapport ak adversaire bi nga am. kenn ku ne xam ne ne dafa aay ci ay xale parce que Lac bi muy tëll ko freiné Yanda bi muy tëll ko freiné Thiat bi muy tëll ko freiné gis nga ko moom ak Baba Jaxal tey nga am ko mu jóge ci defet nga jóge ci défaite combat bi am lu muy représenté ci carrière bi lan nga nar. waaw suuf li ma nar mooy ngir bañ wax wax ji bañ a guddee rek. waaw li ma nar li ma waxoon sa waay rek sànq abul ma taxee fii di ko wax ci bi jóg naan kii ngaaka la parce que loolu footu biir néeg la. waaw li ma si wax daal mooy na waaj rek bëri naa ay xale. waaw yàlla dogal na xale bu mu mos a bëreel maa si gën a nekk xale. Mm. kon damay ñaan yàlla rek ñëw. jël li ma moom dem sama yoon. incha allah mais mais sa sa naaw sokaas. waaw sam bu jaaga génne ndel li. waaw loolu noonu mooy suñu quarante ngor. Ah. waaw ñun amul xalaat. jure kii la kii gën a nekk xale boo ko tooñee mu jure ak yow. waaw te ñun bu ñu dalee sa raw état bi ngay woon ndimbal kon bu taxee fi naan ay naaru te ak moom rek leneen la ñuy wax. waaw sant yàlla. mais mais sañ ngaa jure ak moom am njaay joxul jox waaw. waaw te ñaago lu raw loolu. fi maire bu lay conscience ak naan ab dóor dóor la bu la ñu bu nangu ko la ñu ko dóor. bu la dóoree balaa ngay daan fayul kon kooku noonu kenn du ko woo si ay xeex quoi. Hmm. waaw présence su Ada Fass aussi tamit gis na ne loo xew la day ñëw teew gis nañ fi sax ku mel ni caatu yoofu. waaw Ada sama waay la loolu lu dul làmb moom sama waay la si lépp yàgg nañu trop depuis mbapat la waaw yàgg nañu lool di ko sant bu baax di ko ñaanal carrière am yàlla taxaw ko si si lépp di sant tamit caatu yoof tamit maa ngi ñaanal kalaaf fi mu dugg yàlla may ko mu jël ko waaw la ñun lébu yi Ndakaaru yëpp loolu suñu ndam la suñu feere la yal na ko yàlla may mu jël kalaaf hmm. fi adversaire bi gars ku ci am question wala ñu kii rek adversaire bi dañu gis ne dafa fonk combat bi dañu gis ne dafa kom fonk bi gis nañ keroog signature ñu gis benn développement ci moom. te combat bu mas fonk bu nekk bu àggee ci les jours yi dina métti ci adversaire am boo ñëwee fekk fa lu woo koŋŋ nag. waaw li may wax rek ñaanuñu yàlla mu yomb ñaanuñu yàlla tamit. mu yomb ñaan naa bu ma koy daan ñu ne kii kii indi na doole indi na lépp loolu laa ñaan yàlla moo gën ma daan ko ñu ne indiwul dara. da nga bëgg fekk fa naaru bu pare. waaw bu pare di sant tamit waa stade bi ñëpp ñi ñuy jox stade bi maa leen di sant bu leen gërëm bu baax a baax a ah, ama seen fay jàpp nañ si bis bu baax a baax commune de Ngor bi monsieur le ñoom ñëpp jàpp nañ si bis bu baax maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaw. wuy lamb lamb nga ne. waaw salaamaaleykum waaw di nuyu ñëpp di masawu ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp waaw si si moom. Ah? waaw dégg nga yow bu wóor da ngay du neew. xam nga di nekkal. booy bi naanaan la. dëgg la wax bàyyi tey résultat yaa ngi nii booy bi ak fair play ak bëtu bokkam ko yam. xoolal bëri xaalis taxul nga amee bi dëgg la bëri yéene ah, taxul nga amee nit. xol bu mooy may ay nit. dëgg la mais dafa am si ay booy. Ah. dëgg neexul. naar bu tuusee ah. faas. naaru sukaas. déclaré na gerte ci tuus. ndax booy bi li mu commencé fii gis nga ko duggee ëppee saak. xam ne booy bi ñëw ko. dëgg la mais li ma koy laaj mooy mairie bi doon doon jàppale si ay biir. est-ce que pare na pour jàppale leen benn question. leneen que la waaw bi ci côté bi bi waaw li ma la wax rek maire bi mooy yombal nañu mbir yi jox nañu stade beeg lépp du leen di di leen gërëm mais bu rawee loolu bu weesoo loolu mooy billet man. samay moyens laay bëree samay moyens laay demee samay morom ñëpp xam nañ loolu lu ma lu ma mënta am dama koy def si sama làmb toog barki seero bu may yeew du ma ndéegi sax yaaga naa ko def si ay làmb samay morom ñii ñooy jot seen lépp moom laay duggee si àll bi moom laay jëndee si li may fayeeku lépp moom laa koy def sama avance sama radical lépp comprendre nga samay moyens laay doxee waaw di sant daaxa bu baax a baax moom sant yàlla quoi maire bi ñu ngi ko siy woo bu baax amba ko jël ay 30 bolok 35 bolok yi billet di démé ci ay moyen ay moyen moromam ak di sant samay jigen bu baax xawma sen fay comprendre nga bu démé ba non ñu ngay wo ci ticket ak ci carré yi di ko wax na ñun sasuñu ko ñaar sasuñu ko ya 10 lañ ko sas ak car bu nekk ak yu nekk ak karam ñu ko ci wo bu baaxa baax

waaw la ma jaay ñaan na yalla gëna gawa inshallah rabbi waaw mu doon ben song rek inshallah allah mu jeex si kàttanu yalla bëre bu soo dina ko bi jëm ci Siteu bu ko. waaw man dama bëgg wane leneen benen Siteu retour. ndox su bëre waaw retour bu retour bu am doole bu am jom. moo gën a woo waaw nan nga def aussi tamit. waa yo nee na dóor mu daaru mo leen gënal ndox pare nga pour lool waaw ñu mu aajowoo rek. waaw ñu mu gëna yombé gëna a rek. incha allah rabi. ñaari kaw waaw nu mu aajowoo rek. bala ngaa woote Siteu nan nga def ba réussir tey open presse bi. parce que fekku ñu fi ay policiers. say accompagnant lañ fi fekk ak mbooloo bu bëri. tey yu mel nii yàgg naa tas ay open de presse nan nga def ba réussir open presse bi. waaw li ma ko réussir mooy samay xarit rek. Modou man ñi ama seen fay ñooy samay tànk ñooy samay loxo ñooy samay bët ñooy samay kàddu ñooy samay lépp. parce que dinaa am ko man di leen <laughs> ama seen fay quoi di sant sécurité yi maa ngi sant bu baax sécurité yi maa ngi sant sécurité sécurité yëpp bu baax samay xarit aw ma seen fay quoi